gan gi Maimouna Bousso ni nga ko waxee jiite mouvement force citoyenne soxna Maimouna ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM soxna Fatou Thiam Ngom maa ngi lay delloo nuyoo am mbégte itam teewaat fii waxtaan ak say auditrice ak mhm. jërëjëf ci teel a yeewu bi ànd ak ñun ci waxtaan wi euh, ñu tàmbali ko ak liste opposition bi euh, wala liste yi yu ca bari ñu ne dañoo forclose euh, yeneen yi ñu daal di leen rejeté maanaam gantal ndax xëy na ay jafe-jafe yu ca am yow loole noo ko jàngatee. waaw li ma ko jàngatee de mooy déjà ci ñaari mbir mooy ne bi ko jëkk mooy. naam am nañu jafe-jafe ndax am na coalition yi nekk nit ñi ndax ndaxte ñëpp xam nañ ne euh, coalition yi dañuy dem ba ci cëppaandaw ga ñu daal di euh, booloo ay nit ñoo xam ne xamante wuñu miinante wuñu bokkuñu jikko loolu indi na liñ ci gis ñi war fii ñi daw ak i yooyu yëpp xëy na bu nit ñi amoon euh, temps wu càmbarante ci seen biir noon naa weesu waaye li ci gën a fës nag te ñu nàmmee ko si mooy taxawaayu. ñi nga xam ne ñoo organiser élection bi mu ministère de l'intérieur ak commandement territorial bi ndax loolu su ma ko waxee mooy bi nga xam ne gis nañu muy euh, préfet yeeg sous préfet yi ni ñu doxalee mu nekk loo xam ne ñun def ñu delloo démb naka bi commission bi nga xam ne moo ñëwoon di def audit bi am booba euh, préfet yi nga gis tey dañoo violé woon loi bi ci article R66 bi daanaka permettre wuñu woon parti politique yi ak ñeneen ñi nga xam ne am nañu santeen ci élection yi ñu teewee mission boobu pour mën a fekkee audit boobu nga xamante ne audit sur pièce la woon ak sur place loolu nag foog naa ni euh, déjà junjoon nañu ni euh, commandement territorial bi am na ci ñoom ñoo xamante ne tëddeewuñu njaaxaanaay te bu ñu continuer nii lii tey moo am mooy mooy li nga xam ne moom moo mujjee am mooy ñu wone ni wax dëgg yàlla la ñu waxoon ca audit ba ak am na ay rëkk-rëkk yi ci am tey rëkk-rëkk yooyu moom moo feeñ nii rek ci kanamu askan wi. Hmm. lu ñu naqarlu na nag parce que ñun suñu ay waajur ay ay dañoo liggéey ci commandement territorial dëkk ci dëkk yu bare bare waaye bañ fa jógee wax dëgg yàlla ay ay turandoo lañ fa am ay sant ak ngërëm lañ fa am waaye amuñu fa xeet yi nga xamante ne gis nañ ko léegi ci ay ay préfet ki sous-préfet ñu leen di dégg ci coow loo xamante ne du woon seen kër wax dëgg yàlla. Mhm. opposition bi kon mu mel ni dañoo seetaan euh, ndax jafe-jafe yi yàgg na tàmbali est-ce que foogoo woon foogoon ni peut-être mënoon nañoo def leneen ba xëy na du ñu agsi fii. waaw opposition bi moom wax dëgg yàlla euh, euh, man jàpp naa ni quelque part seen seen xel bu daal xëy na dafa ëpp lool parce que nag bu fekkente ne yow. élection yii dañu ko waroon eh, am ci ñaari at yi weesu ñu dàqandikoo ndax dañuy waxoon ne dañoo war a toog tënk loo xamante ne mooy tax ñu dem ci élection wu jàmm ñu woote woon fi sax lu ñuy wax dialogue politique dialogue politique boo xam ne ñëpp gis nañ ni jeexintel ba lu mu mujj daanaka jurul dara wante opposition bi dugg ci audit bi fichier électoral ñu gis ñu audit bi baaxul ñu rejeté ko nag wax ko askan wi. ñu hmm. jóge tamit ci évaluation ñu rejeté ko wax ko askan wi. ñu gis itam révision primo exceptionnelle ba mu amee primo votant yi certificat de résidence yi problème yi ci am lépp wax nañ ko askan wi waaye loolu yëpp opposition bi mu ko gisee ci li ko gën a rëy itam moy euh, li nga xamante ne opposition bi da koo ñaanoon te ne woon dootul dem ci élection ba ñu jógee deux mille dix neuf dañ ne dem ci élection boo xam ni. ministre de l' intérieur moo koy organiser ñu gis ne loolu sax président mak Sall mayewu ko waaye opposition bi continuer rek euh, ci ci yoon wi mu ne nii mooy ne day dem élection coûte ko coûte loolu nag moom xaw na maa jaaxal te wax dëgg yàlla maa ngi leen ci jàmm baaraamu tuuma di leen wax ne leen responsabilité am dañ ko cee am parce que nag mbir boo ciy dugg te nga xam ne lii ngay dugg des naa leer te nga xam ne bu leeru askan wi du ñu mën a tànn tànneef bu boo xamante ne tànneef bu mucc ayib la yoon dafa laaj nag wax dëgg yàlla nga taxaw lépp loo xamante ne jar na ko nga def ko pour que li nga xamante ne moom la askan wi bëgg muy dem ci élection yu leer mu mën a am. jàpp nga itam ni tasaaroo bi opposition bi demee ci élection yi mën na koo jural jafe-jafe ca ca la. waaw tasaaroo bi moom lu yàq lépp tasaaroo bee ko yàq waaye itam loolu damay wax ni foog naa bi si coobaree opposition bi. parce que mm. ñëpp gis nañ ni wax dëgg yàlla ñaar opposition moo am. am na opposition boo xamante ne dëgg-dëgg dafa taxaw temm pour wu mais am na opposition boo xamante ne nit ñi gis nañu wax dëgg euh, taxawaayam dafa xaw a dafa xaw a tey. ban mooy ban mooy opposition bu baax bi. daa mel ni sax am na opposition boo xamante ne dafay jàppale président Macky saal parce que ah. nag boo xoolee. Hmm. nit ñi war a ànd liggéey pour ànd nga gis ñeneen ñoo xam ñu ngi liggéey pour féewaloo di liggéey pour yàq ànd bi di liggéey pour tasaare ànd bi loolu itam euh, ñun gis ci loo xamante ne waaye nag sénégalais. léegi ban ban opposition mooy liggéeyal Macky xam nga soxna Fatou tey hmm. sénégalais yi jarul ñu leen di liwal ma Samba ma Demba ndax hmm. dëkk bi kenn doful kenn ku nekk yor nga say bët yor say nopp te ku nekk xam nga ñi nga xamante ne ñoom ñoo am doxalin boo xamante ne wax dëgg yàlla nguur bi lay defaral waaye defaral opposition bi hmm. parce que tey euh, bu ñu continuer woon ànd ci bu ñu yàqul woon diggante yi tey waroon nañu mën a joxante loxo taxaw xeex parce que nag lii ñu jëm nii bu ñu ci taxawul xeex tey tamit bu ñu paree danañ xeex parce que ay la yéwén élection kenn dafa war a mën a nangu 2017 ba léegi président Macky Sall organisé wul élection yu jaar yoon ci réew mi élection yu ñëw rek ak ay façon njuuj njaaj yoo xamante ne taxawal nañ ko bu dul parrainage muy ay mbiru ay candidats yu ñu teree bokk ba tey jii muy ay liste yoo xam ne dañu ko rejeté te nag tey na xel wax dëgg yàlla hmm. nga bëgg jël autant de listes de l'opposition ci gox yoo xamante ne da nga fa am ay difficulté nga bëgg a téye seen loxo bañ leen ñu bokk loolu nag dama ciy woo itam acteur politique kenn ku nekk na jël responsabilité am fulaam ak faydaam parce que tamit ma jub kanam ma mag moo koy fajal boppam parce que su fekkee damaa nekk ci gox war a tànn nga terema tànn a war naa am fulla juttal ni taxaw ba su ma tànnul keneen du tànn du parce que dañuy woote xeex mm. ma ne loolu nag du parce que dañuy woote xeex wala dañuy woote ay mm. loolu c'est tout simplement parce que dañoo bëgg opposition bi permettre askan wi mu mën a tànn tànneef bu yoon waan donc nag xeex bi nga xamante ne moom la war mooy gox goxaan yi kenn ku nekk war ngaa taxaw ba élection su fekkente ne dama cee war a bokk ma ma nangu keneen ko ci bokk parce que ëppalewu ma ci gëdd loo gis gannaaw boo nattee uh, taxawaayu jigéen yi ci élection yi gannaaw itam bi ñu fësalee xëy na yenn liste yi ña ca nekk ca bopp ya ñu néew lañu waa loolu moom dañu koy naqarlu parce que nag jigéen ñi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu yàgg nañoo wane itam seen taxawaay ci langue politique bi ndaxte tey euh, bu fekkente ne gis nañu ni bépp góor boo gis ay mbooloo bu jigéen ak mbootaayu jigéen ñoom ñoo koy ngemb ñoom ñoo koy dooleel. Mm. doon na yoon itam ñu gis jigéen ñi ca kanam. ñu ngi jéem nag ndax tey ñu ngi félicité jigéen ñi nga xam ne ñëpp wax dëgg yàlla tàllal nañ seen loxo taxaw nañu itam samp seen bopp taxaw nañu itam di laaj baatu askan wi. loolu foog naa tànki kanam la am du tànki ginnaaw. Mm. ñu ngi leen ci encouragé di leen wax ne naam sax am na gox yu bare yoo xamante ne lii euh, parti politique yi waxoon defuñu ko mooy namoon nañ dinañ investir plus de femmes. investir ñu ko mais nag ñuy wax rek ne plus femmes yi di affirmer wu plus dans l'avenir incha allah gëm nañ ni dinañ am plus de femmes daal les collectivités parce que nag gis nañu ni wax dëgg yàlla càmbar nañ ko bu baax ne jigéen ñi fépp fu ñu jox ay responsabilité luubal gi dafa wàññeeku te itam taxawaay bi tamit am na solo donc ñu ngi leen di encourager di leen féliciter di leen wax na leen nañu continuer dans l'avenir gëm naa ne jigéen ñi dinañ gën a dinañ gën a taxaw. naka la ñuy def justement ba ñu gën a am ndëgër laay ci gox-goxaat yi surtout tàmbalee foofu xëy na doog jëm ca kaw. waa ni ñuy def de mooy déjà euh, gën a am ay ut ay responsabilité te gën a taxawal seen bopp samp seen bopp loolu déjà taxawal ay kuréel jiite ko tamit bokk na ci parce que bu fekkente ne kuréel yi ki jiitu toujours moom la ñuy tabb balaa ñuy tabb ñu ci ginnaawam foog naa ni bu jigéen ñi ji baree ñu ci jiitu euh, tab bi itam dina gën a yomb ci ñun loolu nag ñu koy wax ci ñaax sunu ay sunu ay moroomu jigéen ñu samp ay parti politique samp ay kuréel ñun ñi dañoo yor mouvement waaye dàquñu ba jël mouvement yooyu defaat ko ay parti politique ngir ñun hmm. itam ñu mën a jàppale suñu ay moroomu jigéen ñu gën a mën a taxaw ci kanam loolu parce que tamit c'est l'offre et la demande bu fekkee jigéen ñi bari nañu en en nombre en nombre war nañu mën a itam feeñ ci instance de décision yi waxuñu ay rébellion rek mais gëm nañu ni jigéen ñu bare balaa ñu ne ci ginnaaw góor ñi di xaar ñooñu tabb leen. Hmm. war nañu mën a itam ñoom tam seen ay kuréel comme ça bu ëllëgee gannaaw am nañu parité bu ñuy defati ay ay ay. ak i coalition mhm. nit ñi dinañu mën itam tabb jigéen ñu bare ñu ñëw ci mbirum Barthélémy Diaz euh, procureur général indi na ay leeral ni convocation bi euh, laalewul dara ak élection yeeg li nu ko def candidat ci ndakaaru ndax xamoon nañu ko weeru juillet ba leenu weesu waaye am nañu jàpp ba tey ni loxol politique mi ngi ci ginnaaw mbir mi euh, ci ñooña nga bokk waa ñooñu ñi ko jàpp tegu ki teguñu ko fu leerul dañ koo teg fu leer parce que nag bu fekkente ne da nga ba ñuy waaj a préparer deux mille seize deux mille dix sept nga daal di koy écarter ci élection yi ba bokkul nga daal di jël Khalifa Sall écarter ko ci élection yi ba bokkul tey itam nga jël euh, ku mel ne Ousmane Sonko teg ko ci yoonu justice nga jël tamit ku mel ne Barthélémy Diaz même bu fekkente ne naam dëgg la ni euh, convocation bi yàgg na du tey gëm naa ni tey justice amul benn euh, lu mu war a mën a waaxu ba war a mën a àtte tey Barthélémy Dias parce que àtte boobu mën naa indi trouble à l'ordre public parce que nag bu fekkente ne da jël koo xam ne dafa doon candidat mairie de Dakar nga bu ko woo ci kanamu yoon ci jamono yi ñu toll nii gëm nañu loolu mën naa indi ay rëq-rëq donc dañuy ñaan euh, justice bi mu daal di surseoir à cette convocation surtout nag mbir mi nag yaakaar naa ne du lu bees parce que loo xamante ne dossier buy nekk devant la justice depuis fukki at ana lan moo tax justice àttewu ko parce que gis nañu nag ni justice attana fi yeneen i yeneen i dossier ci anam yu gën a gaaw anam yu gën a accéléré te Barthélemy Diaz mi bu ñu fàttali 2012 ba muy ba ñu koy njëkk a àtte nga woon ca kaso ba ndax dañ ko faa jàppoon boobu mu amoon problème ak régime libéral président Macky Sall mi moo ko fa génnee. Hmm. def ko député moo ko fa génnee dugal ko assemblée nationale. kon nag tey bu wëlbatikoo tey parce que Barthélemy Diaz mu ngi ci posture boo xamante ne àndut ak ñoom ñu di ko topp. même su fekkente ne ñu ngi demander justice mu def liggéeyam parce que Ndiaga Diouf bakkan la dañ ko war a àtte mhm. dañoo war a wax lan ana lan la ci Barthélémy Dias laale ana mhm. lan la ci régime bi laale mais jàpp naa ni du jamono yii lañ ko war a def lii nag ñuy def nag soxna Fatou mhm. defuñu ko Barthélémy Dias dong askanu Dakar yépp lañ ko def parce que nag bu fekkente ne président Macky Sall bi mu toogee ba léegi te Dakar nekk ci loxoy Khalifa Ababacar Sall gis nañ taxawaay bi mu taxawee ci bi parce que mu ngi xoj ville parce que à chaque fois ki nga xamante ne moo yor ville de Dakar mayul kooku mu yi bu mayul kooku mu nooyi mooy mayul Dakar mu am li nga xamante ne moom la war a am loolu nag askanu Dakar ñoom ñoo ko war a faj ñoom ñoo war a jóg taxaw taxawaay bi mag ba nga xamante ne président Macky Sall dina génne loxoom ci Dakar une bonne fois pour toutes mobilisation boobu nag yemul rek Dakar damay wax ne élection locale yi normalement. Hmm. élection gox-goxaan dong la. danoo nit ku nekk ci goxam dafa waroon tànn ki ko ki ko ki ko ki hmm. waaye gis nañu président Macky Sall ci taxawaayam. ak Mahmoud Saleh bi nga xam ne da koo jege yëkkati na ay kàddu wax ne élection locale yii kat dafa am jeexintal ci élection présidentielle deux mille vingt quatre loolu nag ñu ci woo bépp askanu Sénégal bu taxaw bépp doomu Sénégal na nga bàyyi xel ci loolu. Hmm. te nga xam ni kon gannaaw dafa premier tour la kon ça veut dire que taxawaay dina am solo ci bu ëllëgee naka la président Macky Sall war a taxawee ci troisième mandat bi. war ñu mën a ñun ñëpp jóg ci benn say woon ko ne ko li ñu may loon président Abdoulaye Wade duñ la ko may woon ko ne ko fii troisième mandat du fi am woon ko ne ko gannaaw majorité bi nga xam ne moom ngay ndamoo te ba nga ko dalee ndamoo ba léegi ndamoo woo ko ci gàtt gu leer mais da ko ndamoo ci njuut njaaj ñu won la ne majorité boobu duñ la ko jëlati di la ko dénk parce que loolu mën naa indi réew mi dugg ci guute goo xamante ne bu ëllëgee du baax ci askan wi. Mhm. waaye ni yëf yi demee yaakaaroon ni bay wéy na mbuus may mën a buso opposition bi seetaan ba ñu yegg si fii euh, élection yi moom euh, dëpp mënatu caa am li ngay wax nii moom ndax mën naa ne. ah dëpp moom mënu ci am te kenn ñaanu leen ñu dëpp xam nga lu leen di ñaan. Mm. ñu am fullaak fayda gu toll nii parce que nag bu ñu waxantee dëgg rek li euh, ñuy wax bukki bu yabee waxambaane ca doxin bala. opposition bi boobu ba léegi ñu ngi ci dénonciation mais gëm naa ni lii nga xamante ne moom la président Macky Sall bëgg a def bu ko opposition bi seetaanee opposition bi dina nekk complice ci càcc gi nga xamante ne moom la ñu nekk di organiser te loolu nag waru leen parce que 2017 ba léegi ñu ngi dem ci ay élection te xam nañu di tëggu ci élection yi te xam nañu li xamante ne mooy mujj ci élection yi mais ñu ngi continuer di ci dem bu ñu paree def ay livre blanc daal def ay dénonciation ndax bii du jaar fam daan jaar kon local yi mais tey nag suñu cër mooy xam nga lan. Mm. ak cëru opposition bi yëpp dama leen ciy woo ba léegi ndax weesuwul moo jóg taxaw xeex ca ba mu koy laaj parce que nag mbir doo ci nekk mu leer na la lii ba ci jëmee ca pandaw gi ah, indi coow mu kunne di ci dem man dama yaakaar ni weesuwul parce que collectivité la ñu wax. ay commune la ñu wax mm. ay localité la ñu wax donc kenn ku nekk boo organiser sa ay ñoom ci collectivité yooyu ba nga xam ne képp ku la xañ a bokk yow yow sa bopp doo ko may mu bokk gëm naa ne élection du am fii ci réew mi élection du am nag ça ne veut pas dire dañ koy boy boycotter sa veut dire que dañu war a tout simplement empêcher que élection boo xamante ne jaarul yoon ñu di ko organiser ñu ci participer opposition bi ci participer loolu nag moom mooy sama cri de cœur mooy sama appel dama leen di woo ñu ñu à l'unité dama leen di woo ñu jéem a dajaloowaat dama leen di woo ñu boole seen doole mais dama leen di woo ñu taxaw xeex ndax xeex bi du taal dëkk bi du indi instabilité xeex bi xam nga mooy lan mooy permettre citoyen sénégalais yi ñu moom seen bopp ñu am seen kàddu parce que hmm. nag mbiru élection du mbiru parti politique kese. Hmm. sénégalais yi ñoom ñoo ko moom moomal seen bopp parce que ñoom ñoo war a tànn ki leen doy mu jiite leen kenn waru leen a mën a imposer ay nit wala nga téye ay loxo ne ñaari loxo yi kese ñooy tibb ñeneen ñi nangu ko muy ñi recalé muy ñi recalé wul na ñëpp xam ni l' intérêt doit être commun nañu jiital intérêt askan wi. nañu xeex tey parce que nag dafa jot nag dafa jot président Macky Sall xam ni njuuj njaatam yooyu duñ ko nangu waruñu xaar rek mm-hmm. ay élection législative wala élection présidentielle pour coow li di jóg parce que élection yi ñoo ëpp solo élection présidentielle parce que élection yi ñoom ñoo jox askan wi à la base ñu am le pouvoir. jërëjëf Maimouna Bousso ñu ngi lay gërëm yaa jiite force citoyenne mouvement politique amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni mën nañoo teewluwaat waxtaan wi ci réew rewmi point com ak réew Rewmi officiel suñu chaîne ci YouTube jërëjëf Maimouna. jërëjëf soxna